jànq yaay baay Sénégal ñëpp a ko xamal njukkal tariqa tijaniya julliti àdduna bi ñëpp ko war a ñaanal ndax moo meññi borom jamono asayida maam astu jànqa yaayu Baay Ñas ziyaara bañ ko jagleel xat bu yàlla sàkk moo del siwaat alhamdulilahi samedi 22 février 2020 ca lew na ñeseen kër Baay Ñas ren mooy fukkeel bi yoon ak juróom te lu yàgg dëgg la soxna su sell sa soxna su barke sa sang bu mag ba maam astu jànqa doomam ja Baay Ñas ñees saaxibul fayda attijaaniya wër na adduna ci liggéey lislaam alquraan ak sunna moo doon wéeru waayam boroom xam-xam la woon bitim réew fu nekk dem na fa ngir tasaare lislaam kon waaye juróom bu jigéen buñ koy xamal ziyaara foofu ngant jeex na bés bu rëy bës bu màgg ci diine ji Sénégal bitim réew fu ne lay taalibe doomu aadama di bàyyeekoo kan moo organiser bës bi ni mel nag doomu Baay Ñas matee ko sëkk as-sayida Aïchatu bintu Cheikh Ibrahima Ñas ñ gën koo xam ci as-sayida Ndey tànkam ci loolu rek la nekk de jàng ak jàngale te saare xam-xam sang bu sell ku xam njëriñ ci jaamu yàlla yi mooy présidente fondation internationale maam astu jànqa mook mbooleem ñu bokk ci fédération internationale bi ni mel ñu ngi di woo ci bés bu màgg bi ni mel bës bi nag mi ngi am ci ndigalu alxalifa cheikh ahmed tijane ibrahima Niass ci teewaayu cheikh mouhamadul maahi ibrahima Niass mudirul maad alxaaj abdoulaye Niass ak imaamul akbar imam cheikh tidiane ali Cissé na bàyyi cheikh mouhamadul maahi ali Cissé annaatiqu rasmi bismil hadarati cheikh seydi arabi mouhamad zeynabu Niass daayira nasrul elmi atlanta amérique boubacar konaté north carolina amérique monsieur elhaji kebe atlanta amérique ñanko marene asayida ndey khadi diaw ibrahima Niass asayida safiyatu ibrahima Niass asayida ummu salamata ibrahima Niass asayida aji barhama ca Paris ak asayida ndey faatu ñang muxaddama bés ba na ñang cee delloo njukkal fàttaliku doomi maam alxaaji Abdoulaye Niass alkabir bokk na ca baay Mouhamed Khalifa Niass kaatib ba shaacir ba adib ba baay cheikh elhaaji Babacar Niass borom xam-xam bu mag baay cheikh Mouhamed Zeynabu Niass géeju xam-xam la baay cheikh Serigne Mbaye Niass kangam la kàng fóore ma baay cheikh Haadi Niass borom xam-xam cheikh Tilmidi Uldu Abdallah programme ba suñ xëyee jàng alquran 16 heures conférence thème ba ñuy waxtaanee dundu jaar jaaru maam alxaaji alxaaji Abdoulaye Niass alkabir kay def conférence ba cheikh Aboubacar Ba islaam islamolog la lam log ca xam-xam ak a bari modérateur ba cheikh Mouhamadou Mounhamina Ibrahima Niass président national jamiyatu Ansaruddin Sénégal dana fa jël kàddu tamit cheikh Abdoul Malik Ibrahima Niass cheikh Boucar Niang Nafisatu Ibrahima Niass cheikh Moustapha Cissé Aïchatu Ibrahima Niass mbokki àdduna bi bés bu mag baa ngi noonu bésub yokkute ziyaare maam Astu Jànqa yaayu Baay 22 février 2020 ca lew nañu seen biir kër Baay Ñas Sayida Aïchatu bintu Cheikh a Ñas gàcce ngalaama xadara bi falay sago ay yadakillahu wa nasarak